Ganna Fall. coow compliqué ngeen nii ah baax na. lan la liñ jugee wala liñ jëm. liñ jëm. liñ jëm de liñ jëm de saa yi abaa Ndiaye yow compliqué na compliqué boo xamante ni ndaw si <coughs> da doon génn ak ñaari góor. loolu lañ naan mbaraan. waaw. dégg <laughs> yaa ngi sama sujet rek. tey moom xalaas gi rien ne fii moom bu ma xàccee di wax bu ma kenn dagg. non kenn gisoo yow laa doon wax sama sujet. buy génn ak ñaari góor loolu ñu ngi koy woowee. mbaraan eggali. d'accord jusqu'à présent rien ne va. Ah. ñoom ñaar ñépp kenn ku si nekk ndaw si dina tëdd ak yow. loolu. bu dee mën nañu koy wax ci rajo. ma ko. yeggali. nee na kenn gi buy tëdd ak moom. maanaam. buy seex ak moom. waaw buy seex ak moom. dina egg. maanaam buy jot boppam. la muy génnee noonu. dina ko eggale ci kaw ndaw si. keneen ki nag moom bu ko eggale. ndaw si koy ëmb. dafa am kuy yeggal ak ku dul yeggal. waaw ah. <laughs> léegi nag coono mi ngi commencé ci fii. léegi bi mu ambee moom moom moom dafa yab kii nga xam ne du yeggale wala dafa kii yeggale moom da koo ragal mu xam na ki ah mais moom xam na. Ndiaye ñaar la. ah déet Ndiaye kat. dañuy waxtaan rek bu may séq kii kii day yeggale. Uh-huh. maanaam kii day dem jusqu'à bout. Uh-huh. kii dafay am ay limites. kii dafay am ay limite kii day dem juste. waaw mais loolu yomb naa li jënd ñaar bu ñu àndee dem aéroport ki dugg mooy tukki ki yem ci buntu bi kay daa gunge rek. xaw ma lu muy wax de. waaw léegi nag. <laughs> Passepartout xam naa ni euh, comme njaay moom kilifa la. yi du ko mën eh, gars yi nekk ci classe bi ñu ne boo amatee cas yu mel ni nga jox ma ko ma traité ko parce que yow sa yëf du leer ay kii day yow sa yëf du leer yi jox ma ko ma man la réew mi baal lu ma wax man lañ ko baal léegi jox ma ma traité yi ñaari far la am. <laughs> ñaari far foofu leer na waaw Camara foofu leer na Ndiaye ak ñaar ñëpp. <laughs> yaa ngi ay yaa ngi ay na kenn ki moo naan ko. ba ba ba ba. leer na leer na leer na léegi yeggale Sénégal yëpp xam nañ li ñu bëgg a wax fii. déedéet. li ma bëgg a wax. léegi li xam ne par la mi jaay ki dul yeggali. Mhm. la ñu jox ëmb bi. du dëgg du dëgg. waaw ah, xam ni heure buy bëgg a nga naan ah ko noonu la ko nu mu mën a nekkee loolu nu mu mën a nekkee. Ah, déet mën dama nekkoon ne ñoom ñaar ñëpp liggéey nañu ñoom ñaar ñëpp dama doon seexal ñoom lii Moussa Seck moom rapport mu àgg léegi mais moom moom laa wax ne moom laa wax ne yaa jur doom bi. dama foogoon ne moom moo ma gën a bëgg te moo ko waxee kee du nangu affaire yooyu léegi ma wax ko moom ma accepté mu jaaxal na ko sax mu ne man de lii jaaxal na ma yow noonu la def ba ëmb moom moo ma jaaxal ndax tey mun ñoo mosuñu seq rapport bam jaal xanaa doom bu waroon a juddu la rek léegi mu accepté mu takk ma ma takkee ma amee doom mu takk ma waaw ñu am ay problème maam moom kii nag moom bi ma ko waxee loolu nekkate feebar na si loolu deux ñu antal ko hôpital affaire yooyu yëpp ñu antal ko hôpital danaan toog bu wax ak kenn fi mu toog rek lay toog di yëngatu def dara ndax da loolu yëpp moo ko sakke man nag dama fooga ne moom ba ko waxee loolu da see pare changé na beneen vie wala loolu nag te demeewul noonu durant tout ce temps moo ngi toog di feebar di xalaat loolu ndaxte bi ma amee doom moom benn xaritam daa nekk suñu kër nekkat da ko wax mu mu lii ko si si karaw xale bi ba mu nekkee lii da ko wax mu jox ko si karaw bi kooku nekkate daggal na ko si karaw bi yóbbu ko ba mu def test bu positif léegi si noonu bugguma kaa wax si la ñu fekk ñu maye ma kooku takk ma léegi mu ne bugguma koo wax sama sëy di ko wala la ne rek xelu xale rek mu jàppoon moom tamit loolu loolu par la suite moom ñu na ba mu yëgee ne damaa divorcé mu fexe ba wut sama numéro ndax man damaa changé woon numéro moo tax dégganteetuma moom fu nekk na wut na fa sama numéro ma man ma man ma amee jëkkër ma changé numéro kenn yoratut woon sama numéro léegi benn xaritam na ko man divorcé naa léegi si la ñëwee ñun suñu kër wax nekk wax na ko wax bay jooy ne moom xam na ne moo juddoon bi mais bëgg woon naa tas sama sëy léegi na mu ne daa ñëw pour takk ma takk si moo ko tax a jóg daa ñëw pour takk ma récupéré doomam woon famille daal woon sax affaire bi du jëm kaw duñ ko wax kenn te man jigéen laa te bëggul sama der yàqu bëggut sama fama maamal sama famille problème wala li ñu ku nekk di wax di yàq sama der man maa ko xelal sax ne ko déedéet kan mënu koo nëbb ndax sama doom bi ak moom dañoo nuru benn lañ suñu waa kër gisuñu ko demee xam naa ba buñ fi ñëwee dinañ tiit sama doom bi ak pooku benn lañ ñoom ñaar amuñu différence tey boo ma takkee it boo ñëwee suñu kër bu la gisee dañ xam ne ki yow yaay papaam te mooy papaam yoon comme que metti na te affaire bi dem na boppi loxo xale bi am na trois ans nañ ko wax benn yoon rek lu si am rek ñu xam ne noonu la léegi nag wax na ko magam bu góor tey magam bu góor bi woo na ma téléphone di wax ne ma ngi te lii yëpp bu ko teewoon naa wax lii du si am mu ne mën naa wax ak sama sama yaay rek maa wax ak sama parent wax leen ko pare après ñoom ñu ñëw fi fan yi ñëw fi régler problème boobu ñu jël en charge seen buñ may takk ñu takk ma léegi nag ma wax na koy parent bu pare mën na maa ndax nu ma koy waxee samay parents ndax loolu tiis na ma trop ko ma koy waxee sama yaay xale bi amagut ay kayit ndaxte moom ba ma sëyee moom amut woon carte d'identité finalement su mujjantee bi la am carte d'identité maamam ñu divorcé nag ma indi xale bi wax naa ko fi ay minti fois pour mu wutal ko kayit naa ma bàyyi ko ba ba mata dugg école dinaa ko wutal ay kayit booba tey amut ay kayit léegi Ndiaye ki daal woon eggali la bonne nouvelle mooy moom non seulement daanoon eggali mais amul kàddante. ça c'est une bonne nouvelle. waaw pour xale bi. parce que parce parce parce que déclaré wu ko. man gis nga le mot daanu Ça me dérange xaw ma nag. <laughs> dérange c'est parce que dafa am ñoo xam ne amuñu amuñu entente bu sori bu xóot boobu amuñu écoute boobu daanu yeggali bi man sama dérange. man de wax ji li ma ciy déranger bëri na hmm. torop. torop torop torop torop. xëy na nag li ma di kaw kaw moo tax. Mm. ñaari mbir am na ci. Mm-hmm. Mm. Sénégal dem na ba toll foo xam ne jigéen taxaw naan dañ ma ëmbal dootul dara ci ñoom et c'est regrettable benn. Mm. moom mii mu mën a taxaw ci xale bu jigéen bu amul jëkkër ne amoon naa ñaari far kii daan naa séq ak moom kii da daan def lii kii da daan def li kii da daan def lii. muy mbir ma déranger hmm. d'abord hmm. parce que déjà fala fala fa mbon ak ñaaw tambalé hmm. bu féké yërëmuñ ko jugé mako nak nag mais fala fala tambalé ñaarel bi moy li ciow li di bari bari bari yépp ki daan yeggale ki daan yem ci buntu baak mom mi ëmb ak moom mi ñu tak ak ki ñëw di tak ak ñom ñépp du victime victime xalé bi judduna ci condition yo xamné ne ko mi benn boo fanam guddee dana ko topp ba keroog muy màgget te ñi ko def ay magi jëmm lañ kon mooy victime bi mhm. mooy victime bi léegi nag comme li wala fii di wax bu ndox tuuroo am bàq des ngay dajale bàq ba yóbbu hmm. comme moom mii nee na kee mu jur doom ji hmm. na jël ay responsabilités njuumte li mu def ginnaaw mu jéem ko rattrapé ki jur doom ji mu jox ko doomam kooku jox ko santam ñu jox koy këyitam parce que parce que li tax waji nangu loon déclaré xale bi waji aussi da na ci am ay doute mom manam ki da no won yegal mom mom xawna poser question non nak meuna démé ba ci yag mune non xëy lu wara am la wala affaire non quoi mu nang ko parce que moom japon na ni ki mu ko jiiñ moko gëna bëgg nek rek kële nak mom tek na ay pexem ba wut ci karaw xalé bi dem def test ADN ci limu wax karaw xalé bi waaw parce que nee xaritam dafa dëkk seen biir kër moko jox karaw xalé waaw ci limu wax <laughs> ci lim ko wax tamit moom tamit war doomu jàmbur ji nii. <laughs> ci lim ko wax ñun suñu réew mi yàqu na. mais kii bu bu bu fekkoon dafa am leneen lu mu soxla ci xale bi tamit ki ko jox raw xale bi mën na ko wutal loolu jox ko. dañoo manduwul ab. pourtant loolu ndaw si wax na ko sax wax na ko ci élément bi dégg naa ko lay dañoo manduwul. yow jàmbur nga wat ko nii di joxe ay karaw jàmbur rek loolu sa yoon fekkee woo yow dara yow maam ndeysaan oh ci rajo lañ nekk. fekkewu daar ci yëf yi di jël këraw jàmbu di ko joxe. ñàkk rek. ba ñuy woowante fekke woo ba ñuy gisante fekke woo ma ah ah yow fekke woo dara fekke woo dara di jël karewu jàmb di joxe. Ndiaye léegi fam bi moom lu mu bëgg. moom dafa bëgg koo xelal ndax moom rus na ko wax yaayam rus na ko wax seen waa kër te waa ji ka njëkk ka dafa ñëw pour takkaat ko moom tamit. mooy ki jur xale bi réellement. waaw. déet affaire bi doonatul diggam ak seen waa kër doonatul. ay ruus na déedéet problème bi mooy fi mu ne avenir xale bi moo nekk en jeu. na ko teel a wax. Hmm. bu dee waa ji bëgg na ko mu dem takk ko moo jur doom ji mu jël doomam yor. ñu fàtte histoire bi ñu fàtte histoire bi. ñu transféré papa ji. non du transfert amul loolu waaye xoolal bu ñu ah, compliqué l'histoire bi. transfert la ah, bi. mooy kii xam ne moo nekk ni moom bële ah, am yu. mooy transfert. déedéet du transfert ku ne ci club. déedéet du transfert. du transfert mu jur doom ji li femme bi wax waa Ndiaye waa yow fekk la nga toog ñun la yow xale bii nga topp di ko doomoo pendant trois ans juruloo ko bàyyi ma ngi nii taxaw. ah nga xam ne juróo ko rek. yéen ñaar doon playandoo. waaw mais nga xam ne juróo ko rek nga nangu réalité bi c'est aussi simple que sax mais nag nañu sóor xale bi aussi paas xale bi day màgg. waaye yor ak njaboot war a doon quelqu'un ci réew mi war fi tekki dara. donc bu ñu bu ñu la jël àddunaam bu ñu la jël yaay ji wala damaa gis damaa gis damaa gis euh, ministre de la de la famille. bu bees bi. bon mu baal ma ma gis ko du mag. Fatou Diané muy xale daal. mu ne ko sama xel lii problème ci famille sénégalaise bi boo ko bëggee di jënd léegi nga bee jàpp. Fatou Diané bu yàgg day màggat bu yàgg. Fatou Diagne la bu yàgg. réew mi fami yi lëj nañ lëj goo xam ne. Eh, Ndiaye. maanaam foo fatt feneen jolli. ma ni madame faatu Fatou Diagne mu laaj ma sama xalaat de. ci lan famille yi ci réew mi ma ne ko gumba tax lu rek. la nga mën def ko lu nga mënul nga seetaan leen fami yi.